kay nag defe naa ni baax na foofu ah ku gis sama éponge bi ma yor rek nga xam ne dafa tàng taar kàlla macha allah ayca foofu rek laay jaaree rek daal di nuyu baax a baax ah, mbokk internet yi nga xam te ne ñoo safoo Hann TV ayca am mbégte ak contentement bu rëy daal di jàkkaarloo ak yéen seen premier numéro bi nga xam te ne moo di Hann Feeling Hann Feeling nag ku ko dégg rek ah, sa xel war na dem ci ah, lépp luy neex nekk ah lépp la ñuy waxtaanee tey nag dama andi benn thème boo xam te ne askan bi laa koy laaj damay def lu ànd ak sama caméraman bu ñaawul bii ak sama éponge bi yor sama loxo ñu doxantu nànk ma daal di xool rek euh, naka la ñuy euh, waxtaanee ci li nga xam te ne moo di euh, actualité muy 400000 yi ak topp ma sama caméraman. salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi tur bi naka maa ngi tudd Samba Kanji dëkk Daara Jolof. Samba mbaa yëngalu géej gi di ah, maa am na lu ma si yëg tuuti de. ah muy lan. ah xanaa yaa ma gën a xam. waaw mais 400000 mbaa jot nga sa wàll rek. non 400000 jotaguma sa wàll mais ma jot sama wàll dana neex trop instant foo nekkoon. man man kay maa ngi maa ngi tax mënu ma see jot. lay li li la yow 400000 ñëpp jot nañ seen wàll xale yi sa jot nañ seen wàll. da wax rek ah man de ma ko jotoon sama julli dana neex moom wax dëgg yàlla. waaw léegi nag dama bëggoon gannaaw bu ñu jugee ci 400000 dama bëggoon rek nga may ñu benn euh, sketch ñoo lay seetaan ko defee seen aw lii benn benn benn paa la woon quoi. Uh-huh. après yaa xam sol caaya di saw muy tuur ndox ba si yàgg rek daal di yaa ma gën a xam daal di bàyyi ngelaw benn maire bu jong ma jaafa na ko surum lem na ko buy jolli may ñor ma gën a xam. <laughs> ayca kon ñoo ko déggandoo bokkente defe naa ne xeetaan ngeen ba seen a ñàkk ak daal di xooli keneen ayca ñu daal. Wow, music. yow neel ma samay ennemis yàlla xool lay fay ñu doon ñoo di naan di te démb ñoom ñoo coolee tay boo dee rapport yor xool bu bon awu jin mbay jëy fay man baa di dëgg laa si seeni livre job day fay yow fi nga toll di bàkk ñun dañ ko jéggi naaw original boo yer raakaam ba tey rek ñeneen ngi seen émission bi nga xam ci ne moo di Hann Feeling aca ku xam Hann Feeling rek euh, xam ne en ah, premier numéro bi tay la lépp luy neex ne fi leen koy waxtaanee salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi naa ñoo lay dool ziar tur bi naka la Ousmane Ousmane mbaa yëngu luy bës ci mim réew jamono ji bëri na de. waaw comme lan. a ah, comme jeunesse bi rek. booy gis nga leen. mais man xam nga la si la ci la laay wax jamono jii 400 mille mbaa jot nga sa wàll. non jotaguma mais maa ngi gis gars yi di di publier si Facebook beeg inter li Instagram ak yooyu. ah ñi ñëpp si ñëpp ñëpp am na seen wàll de. non man man jotaguma man. jotagoo ba tey. nekkoon. maa ngi si dëkk bi rek di wër. léegi nag naka la ñuy def ak tabaski bi nii. ah tabaski bi xam ngi nii rek sant yàlla rek. Hmm. Ah. kon donc baal nga baal nga leen 400000 yi. ah 400000 yoo mënul siise kay nu mu fa demee kay. <laughs> Eh, kon neex na ba noppi ah ayca léegi dama bëggoon nga jox mbokk euh, internet yi benn benn léeb bu ndaw rek. non man léeb nag moom sama waa ji moom. waaw doo ñu maye benn benn maye bu ndaw rek. non kii moom a gën a taxaw si lépp. ayca ba tey ma dem ci moom rek salaamaaleykum. non man moom. mooy tamit nag xool ko non man yow laa bëgg a laaj ñëw rek ñu wax si actualité yo tamit ñëwal waaye tur bi naka bu bu laa tudd. foo dëkk fii nga dëkk. ayca mbaa yëngaluy actualité jamono ji waaw. yënga ko. waaw. Ah. léegi sa 400000 ana jot nga ko wala. 400000. waaw du dara. <laughs> waay waay waay li neex yow xale yooyu ñëpp jot nañ jamono ji jotoo ba tey. non loolu du xaalis. lii. waaw. mais loolu garaaw na de nee na loolu du xaalis. non non non 400000 loolu du dara. mais la moo tax loolu. weccet la nii rek. day li li ah, cameraman jëlal ma kii waay. waa léegi nag bu ñu jógee ci 400000 dama bëggoon nga may ma wax ko internet yi nga xam te ne ñoom ñooñuy seetaan benn léeb bu ndaw. léeboon bii nag benn Baye Fall la woon Baye Fall bi bëgg laax bëgg laax ba xamul lu may def. boy ndaw na di lek la ba ba fa bi jógee Touba di daw ci beufi boy booy toog di lekk laax laax baa ngi tang jër ba fa bi jóge nan boy xaar len ma eh xaar leen ma ba fa bi ñëw xoola raxasu woo sa mu ñëw dugal wax bi juróom ne wuy sama ndey wuy ya yoy mi noko ko la mu ne gem sëñ bi rek <laughs> ay ga dama mel ni neex la ba nopi ha ah, dama def du doxantuwaat nank rek xol ay ka alaykum soxna si maaleykum salaam miss yow jongo ma nga de ba énervé waaye nag xale yi gis nga ki nu mu mignonee nii yéen. déggal bàyyi toj. waaye xale yi kii moom mignon waay. merci beaucoup c'est gentil. waaw soxna si dama bëggoon nag euh, ñu waxtaan ci benn actualité boo xam te ne jamono ji euh, moo nekk euh, ci mim réew muy 400 mille maa jot ko sa wàll. non non jotaguma sama wàll. ak sa table gu yànji gi jotagoo sa wàll. non pas encore jotaguma ko. léegi yow boo ko jotoon 400 mille yow lan lan nga ciy def. instant bi su ma ko jotoon moom am naa ci yeneen projet. projet. yoo xam nga instant bi dañoo nekk ci tabaski. xam naa beaucoup de jeunes filles de mon genre taille bi bu ñu 400 000 ñu nga ay cheveux wala des trucs du genre bref man bëgg ça aussi mais j'ai d'autres projets pour ça donc si yow boo ko de daal da ngay jël ndékki bi tey na dem directement. ndékki bi sama yaay lay jàppale mais à part l'équipe, bi je fais autre chose élève là dama ci xool ci investir genre voilà waaye gis nga ni la waay Hann Feeling ni la gars dañuy wax seen i xeet yu baax baax mais kii bëgg naa ko ah wa légui dama bëggon nak nga may bokk mbokk internet yi nga xam ñoo sitaan na Hann Feeling ben lépp ndaw rek bu ko défé sa moromu jigéen daal di xaqataay ba seen ba ñak tamit nak ay waay j'aurais bien aimé mais bref man mom dama mënul ces genre de trucs là affaire yoy noonu yaa gën xam ay compte mom moy loolu mënumako ayca ba tey kon jégal naa ko ko rek ces genres de trucs là mais kii moo neex waaye <laughs> ayca bëgg naa loolu kat sama caméraman topp ma ba tey rek ñu dem ah. ayca waaw kay nag baax na foofu non xam nga doxantu naa ko ba xam dinaa daje keneen ba xam mais ñeen saf nañ xorom de non mais neex nañ waay eh, dafa mel daje naa kenn de waay yow waa mais pain suukar ak istik <laughs> fii neex na. waaw waaw fu <laughs> yaa ngi yaraax nag kañ waaye merci beaucoup bon appétit way sama si ñëwul gaan la de. kii dafa mel ni ay yii la de en tout cas Pulo. mi ngi ko Pulo Fouta laabu la poos. waaye gañe <laughs> naa waaye dañu naan benn Pulo mooy sax. waaw gis na te nekk original boo yaraa. acca ana la toog. waaw jëndoon alhamdulilah. ana na jam. oui yetteraal alhamdulilah. ana hebi 400000 ma. mi bon pas encore mais hebaal taw 400000 ans. parce que Aliou boobu léegi maa koy woo xam nga rapidement laa koy jamee boobu la si biir. on nani de on nani onon internet o on nani <laughs> ati kon nag nañ ñëwaat nag ci olof gi nag ah bisimilah waaw parce que waa léegi moom nee na moom jotagul 400 mille am kon donc Aliou Sall nee na ko woo ba sonn jotu ko kon Aliou Sall wuy ko dégg nga ah gars yi ñu ngi laaj seen 400 mille ah ati léegi nag dañoo bëgg nga may mbokk internet ci benn léeb bu ndaw rek non lépp non soxna si man man léeb yooyu ay ma si ah. waaw mais yow sa pain sa pain bi nga yónni sax mën nga cee léeb baay non sama pain bi nii ah. non dama pain la laa si war a mën a léeb mooy yow fii Sénégal non waxal gars yi nañ ñëw ñu ndekki. <laughs> kon gars yi ñoo leen ndekki ah. porte à porte Sénégal wala ma ñëpp ñëpp xaj nañ si pain bii nii ñëpp. cat ba cat cat ba cat kon donc kon 10 heures maa yaraax. Ah. fii rek la xew ci Hann TV ah. ak dafa mel ni euh, gis naa sama ñaari tata wala sama ñaari mama damay doxantu ndànk rek daal di wax ñoom ci actualité ayca ba tey rek Hann Feeling lañ wax ah salaamaaleykum. maman ziar naa la. yaa ngi am jàmm bu baax. ayca tey dañoo ñëwoon nag euh, fi nga xam te ne moo di euh, ci yaraax euh, émission bi nga xam te ne mooy Feeling mu nekk premier numéro tay, ñu fas yéene waxtaanee waxtaanee actualité muy 400 mille mbaa jot nga sa wàll. waaw ah man de loolu wax dëgg yàlla man damaa waaye son bay door a ñëw loolu moom dara wóoru ma ci waaye li ma la bëgg a xamal daal réew mi daal bu ñu bëggee mu dox dañu nangoo liggéey nangoo daal suñu doole waaye nangu ñoo daal suñu tool topp ci télé yi wax rek wax rek du sottalam réew ndax réew gouvernement baax na ci waaye daal su doole ci la bokk ndax ñun ñii ñun ñi fo quatre heures du matin la daan suy doole ba dëgg ñu door a ñëw am réew nag ku bëgg mu dox da ngay liggéeyi soo liggéey yàlla may na dara waaye toog di wax rek oma dara oma dara diw jël naa nga loolu doxul dara ci ñu bàyyi coow li ndax réew mi coow wu ñu pétrole bi ñu wax nañu bàyyi coow li bokku ndey bokk bàyyi juboo xol yi doon benn lu ñu liggéey dañ ko mën a jot waaye tant que ñu coow du ñu mën am dara duñu dañuy tardé suñu bopp rek ndax suñu doom yaa ngi liggéey ñu dara ci loolu lépp coow lee ko waral nañu ndax àddina amul solo nañ dal bu ñu dalee liggéey bokk ndey ak bokk baay ñun ñëpp bu ko nee daale sa doole rek réew mi dina dox waaye diw nag jël na léegi jëluñu lool ñun dara wóoruñu ci man wax dëgg yàlla mënu maa jox dara ndax dara wóoru ma ci li ma lay daal daal sa doole daal mooy dëgg boo daalee sa doole loo bëgg di am waaye diw jël na nangam diw jël na nangam demul fenn nañu liggéey nañ liggéey góor ñi jigéen ñi nañ liggéey xale yi nañ liggéey ñu raxas suñu xol yi nekk benn bu ñu raxasee xol yi rek ñun réew mi loolu rek laay ñaan yi te ñaan yàlla jàmm ci réew mi yàlla na indi ndoxum jàmm seddu guy yàlla na ko fekk ca tal ko loolu daal laa am lu ma ciy wax ba dara lu ma ci lox lu lool sant waaw aci mu nekk suñu doom la suñu rakk la di ko ñaan yàlla si émission bi yàlla na jëm kanam yàlla na ngeen avancé ba muy télé télé ci barkeelante bi acca mu nekk euh, rek conseil bu am importance boo xam ne moom la sunu maman bi souligné léegi mënaguñu ko laaj na ba xam euh, bu ko jotee naka la gi def parce que dégg ngeen conseil yi nga xam ci ne utilisé na quoi defe naa amal naa fi keneen ah salaamaaleykum maman. salaam wa rahmatulah. maa yàlla nangu ziar. maman yëngali actualité jamono ji waaw actualité bi yëng nañ ko. ci muy lan. muy pétrole bi te li ñuy wax ci pétrole bi amul sens. Mhm. nit ku ne da ngay defal sa bopp. nga liggéey ñun pétrole bi bu ñëwee si ñun am na si si sens amul suñu sens parce que ñun ay jabar mool lañ te suñu jëkkër yaa ngi war a liggéey ñu tere leen du ñu liggéey kon dégg nga loolu kon mi ngi kon li may wone kon Hann TV fii si yaraax fi nekk dafa bari <laughs> mhm. man mi di wax ak yow jabaru mool laa mhm. ñu ngi ni mool yi dañ doon fanaan ñuy am suñu wërsëg mhm. mool yi fanaaneetuñu dañ leen tere fanaan bi pétrole bi seer na ñun ñu jotuñu si ñun bu ñu xëyee 4 heures du matin la ñuy liggéey suñu jëkkër yi dañuy fanaani géej bu ñu xëyee ñun ñooy nekk géej léegi suñu activité yëpp dafa coupé ndax mool yi fanaanetuñu amuñu lu ñu liggéey mool bu fanaani boo ñëwee doo jaay xam nga ñun te ñun ay jaboot lañu ñun ku ñu dimbali dimbali suñu jëkkër loolu lañ bëgg ndax bu ñu fekkee ñun dañoo fekk ci liggéey ñun tooguñu di xaar nguur gi nguur gi daf ñoo fekk ci liggéey ñuy liggéey nag daan suñu doole tàllal ñu kenn loxo mais sa jot nga ko ñun jotuñu benn 400000 ndax gisuñu dañ koy dégg rek <laughs> ñun suñu 400000 ñoo koy liggéeyal suñu bopp ndax tëdduñu nelaw rek di xoole dañuy jóg di daan suñu doole 400000 yi ñun jotuñu ko ndax dégg rek lañ ci am té buñ ko jotté ñom ñoon diko wax ñokay séddo lé yow boko joto nan nak lan nga ci def <laughs> man <laughs> gëmul ndax dina ko jot dé ngeen wax lé mo néna gëmul ba xam dina ko jot walé ñi nga xam dañu jot tamit nañ xawa sédé rek ñeneen ñi quoi comme niko xalé bi waxé sank rek gëmul dina ko jot uh-huh. parce que affaire yi rir la rek dañuy rir rek riral ba mu rir ku jot nga laq sa bop tok ñi ci def ñu du bop sa bop la sénégal mom bop sa bop la ñun nak dañu xam liggéey liggéey lañu xam dañuy liggéey ba bañuy dé nak uh-huh. luñu am ñoko amal suñu bop faalé wuñu nguur macha allah dem na c'est très important ak dafa mel ni rek euh, dégg ngeen bu baax a baax euh, sama ñaari maman yi li nga xam te ne moom lañu souligné muy euh, lu am importance ak damay doxantu nànk xool un pas deux pas dafa mel ni seen naa sama benn tonton ah xaama dox xool salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah tonton ñu lay ziar bu baax maa lay dellu ziar ak tey nag dañoo ñëwoon fii nga xam te ne moo di di def suñu premier numéro li ñuy wax en feeling mhm. ak ñu bëggoon xam bu baax a baax xam nga actualité jamono ji waaw euh, actualité jamono ji moom mooy euh, tabaski bi rek quoi <laughs> waaw. am nga xar mbaa. waaw am naa xar quoi. ayca xaalis bi dugg na kon. waaw sant yàlla bu baax a baax nag. léegi sa mille jot nga ko. bon man nag euh, non bokkuma ci yooyu nag quoi. <laughs> non 400000 jamono ji moom moom mooy actualité man man mën naa ne parce que ñi nee nañ jot na ñi nee nañ jotuñu ñu bëggoon xam sax la. non man nag jotuma benn cen0mille de. ba tey jotoo 400000 non non non. ah mais tonton loolu doy na waar de. mais gars yi jot nañ de. day na waar de kon kon kay nañ ma indil sama 400000. fan la <laughs> fan lañ la koy envoyé. ah man maa ngi nii de yow yaa ma gën a xam. <laughs> ak dafa mel ni kon neex na ba noppi waaw ñu bëggoon xam ne boo boo ko jotoon lan nga ciy def. ba ma ci jotoon nii am naa ci ay mbokk yoo xamante ne vraiment dañoo néew doole lool mun naa leen jàppale ko waaw waaw mais pour man moom vraiment ça va mhm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax mhm. bon am na yoo xamante ne samay copains wala samay xarit. Mhm. yoo xamante ne seen loxo jotul ginnaaw daal ma jàppale leen waaw. waaye une bonne fois pour tout sax ma sax beneen conseil boo xam te ne nit ñi mën nañu ko dégg tamit mais ça c'est bien waaye waaw mais tonton bëggoon nañ xam euh, ba xam di nga mën a libal ba mbokk internet yi nga xam ne ñooy seetaan euh, Hann Feeling. ban si. ma bëggoon xam euh, ba xam di nga mën a libal benn lib bu ndaw. lib nag xam nga man tukulóor laa ko man ne ne da ko bandum. Eh, ne da ko bandum quoi. joni joni a ah, tottata e eh, mbokki internet o oh, oh, ko eh, seeɗa tan ɓe tinda seeɗa quoi eyyi eyyi eh, tindanmi ɗo ko demoyale bojel quoi après ɓe ɓe jeehi ɓe ñamoye baali jarani quoi joni noon o hawre demba ka demba hawre bojel quoi mhm. o wi kaw demba holto janoɗa mhm. o wi janomi ko ñamoye ɗo baali janani quoi mhm. o wi somi yettima holno mbiyanmi quoi mbiyata ko hayri kirip kip o naati nde o naati nden o ñaami baali makko ha laaɓi joni noon o arti noon o hori noon andude no udditirta affaire nde quoi ok merci beaucoup <laughs> ak lii moom defe naa ni moom maire yee ko mën a euh, wax wala wala paa yi nga xam ne dégg sama genre gi dégg ko dara si tukulóor tarkalla macha allah kontaan nañ bu baax a baax ak defe naa ni euh, mbégte ak contentement bu rëy rek ngeen am yéen mbokku euh, internet yi nga xam ne yéen sa fond Hann TV waaye seen émission bi nga xam te ne moo di Hann Feeling ak damay def lu rek daal di bàyyi ak sama caméraman ci ay xeet yu baax baax léegi dama leen jox dig daje semaine prochaine incha allah ci beneen numéro ak li nga xam te ne moo di Hann Feeling acca kon donc surtout Penda Sarr bee koy def maa ngi ni jamono noir bu feras bi dëgg neexul kon donc damay def dul rek daal leen wax excellente semaine Wow, flippers.